مد الخبير لي والكبير ما لا يقول من الله مد الخبير لي والكبير ما لا يقول من الله mbégte ak kontante ci ànd ak Tawfekh Production di ko sant bu baax a baax ci teewaayam fii ci Badar Badar nag dëkk la boo xam ne ci tënk lenn doo nga taxoon borom sanc ko mooy jàng alxuraan ak jàngale ko mu nekkoon bërëb boo xam ne képp ku bëggoon a jàng alxuraan ci tund weeg lu ko wër fii nga daan ñëw fekk fi borom dëkk bi nga xam ne moo ko sancoon ñu koy wax sëriñ Habibullahi Guèye Badar ñu ko daan wax sëriñ Badar Mayib moo fi daan jàngale alxuraanul karim ba mu fi jógee tamit ak njabootam nekk ci njàngale képp koo xam ne ba ngaa jàng alxuraan mën ngay ñëw fii ci Badar lii nag ñu fi dajale tey di bisub gàmmu maanaam euh, màggal guddi juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy loo xam ne dañoo fekkoon suñuy baay di ko def suñuy maam di ko def ngir barke bis bi lañ ciy def ñëpp xam nañ ko mooy jàng alxuraanul karim waaye tamit jàng ci ay xasida waxtaanee yonente bi sallallahu alayhi wa kon xam naa ne loolu rek moo ñu fi indi tey mbokk gépp di fi daje di santaat bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal kenn doon jàmm Solo waxtaane dëkk bu tedd bii ñu ne muy Badar Gueye Badar Gueye nag suñ ko waxee mën na ni tudd nañ Kajoor waaye wax mën nañ ni tudd nañ boolem nit ñu baax ñi xam ni suñ borom daf leen boole ak bokk bokk nag di lu am solo Badar gii nag di dëkkub cosaan waaye di dëkkub kilifa ku tedd ku mag di sëriñ Abibulahi géey ñu gën koo xam ci sëriñ Badar Gueye ñii gën koo miin ci sëriñ Mayib Fat Ndaw maam Mayib moomee nag moo sancan Badar gi maam Mayib nag di boroom juddu bu sell ndax ku ni wax maam ma Kumba Gueye mooy baayam waaye Fat Diop ñu naa ko fa Fat Ndaw mooy yaayam di doomi Mayib Assane Mamadou Mballa ah, mu bokk ak Marema mi jur tuuti ak mbee mbee lañ ci ko jox Xaadimu Rasuul mu am ci soxna Jum Mbàkke ñu jël soxna tuuti jox ko yaakaari jam ñi moom ci suñ mutla soxna musli soxna mi Cheikh kon maam Marema moom ak maam Fat Ndaw ak Assama yëpp ñoo bokk baay ak ñim bokkal ah, maam Mayib nag di borom judd bu sell waaye di borom jegle jagle ko yàlla baaxal mu fekk fi nag loo xam ne moom la ay maamam yu baax yi daan def muy sanc ay dëkk sance ko ragal yàlla ak bëgg lu baax waaye sanc ko alxuraan kon man ne nii mboolem dëkk yi ngeen yi nga dégg senegal yëpp alxuraan rek moo tax ñu sanc ko ak ragal yàlla maam Mayim nag bi mu sancee dëkk bi am fi njabootam gu tedd gi tàmbalee ci sëriñ Omar sëriñ Morassa ak sëriñ Abdoulahi Guèye ak soxna Faati Guèye ak soxna Caara Guèye ak soxna Mati Guèye mi jur sëriñ Abdoulaye Diané ak soxna Binta Guèye ak mboolem njabootam gu sell gi nga xam ni am na leen fii ci badat yi kenn ku ci nekk fa nga nekk ab jant nga fa am yàlla dogal nag mu bàyyi fi ay jàmbaar mel ni sëñ Omar sëñ Mor Assa ak ñun bokkal ñu taxaw dëkk bi dëkk bi nag mel na ni luy gent ci ginnaaw sëñ Mor Assa ak sëñ moor Alima ndax bi sëñ Omar demee sëñ Mor Assa mooy dëkk bi fi sëñ Mor Assa jógee jël sëñ Mor Alima indi ko fi ba ci moom ma Kumba Daaro moom nekkat na fi ak mboolem kilifa yu badar yi ñi ci ëpp ñëpp nekk na fi moom ma Sambanta mi jur baay sëñ Gueye ñànka nekkan na fi mboolem kilifa yi nga dégg yu bari nekkan nañ fi waaye ci ginnaaw nag sëñ Mor Alima dëkk bi meleen nañ ni luy gent waaye ci jàmbaaru alxaaji sëriñ Gueye ak sëñ Mor Taala ñoo dekkalaat badar ba badar mel nii mu mel na aleykum wa rahmatullah fii mooy waaju ahlu badar fi nga xamante ni Baye Serigne Gueye moo ko sosoon waañu ahlu badar bi nga xam ni Baye Serigne moo ko sosoon booba ak léegi war naa mat 40 ans ci li ma ma nekk fi ma nekk fi jëwriñ joo xam ni bàyyi Serigne Gueye boo ma fi tegoon njabootam bi ñu ñëwee itam bàyyi ma fi ma nekk fi ak gune yi di sant bu baax di ñaan yàlla mu yokku ba tax na man li ma bëgg a wax lépp sax du ma ko wax ndax su ma ñëwee léppi kër gi ci suma loxo lañ koy teg lu ma ni waaw waaw la lu ma ni déedéet déedéet na nga xam ni daal ñun am nañu fierté si ñëw si gàmmu ak ndax ba ma fii ñëw di fi fekk bàyyi sa yi ñeenti xar la du déparé woon ca ñaareel bi at ba ñu teg ci ñeenti nag ñetteel bi ak at ba ñu teg si juróom-benni nag ba nag yi dem ba nekkoon fukki nag nu doon taal fanweeri cin ak juróom-ñaar ñoo ngi njëkk a taale si taatu randi gi fi leen njëkk a toggee waañu ba dem waañ wi dem na dellu siwaat fi mu cosaanoo woon ba tey jii may wax ak yow nii rey nañ fi juróom benni gëléem kon cant gi da koy am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem asalaamaaleykum mbokki julli ni mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm ci dëkk bi di Badar fii nag mooy waañ bi bi nga xam ni lépp lu jëm ci li dalal gan ñi mm, fi la féete ñu dénkuñu ko nag euh, euh, ñu nekk loo xam ne ñu ñu ko dénk ni ma ko waxee woon daaw rek yéen ñu aw yiw rek moo tax ndax ñoom xam naa ni mënoon nañ koo def mën nañ koo defal seen bopp am na nañu nuñ ko mën a defloo waaye nit ki moom su la yéenee aw yiw daf lay liggéeyaloo sëriñ seexu Seexuna Géey mi nga xam ne mooy euh, taaw ba alxaaji sëriñ Géey di xalifaam santuñu liggéey bi ñu nekkal ko fi euh, ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom dooleel ko te kàttanal ko guddalu fanam wéral ay cëram eh, ak rakkam yëpp nag moom seeni donga lañ nekkal leen fii ci waañ bi eh, di sant bu baax nag ñëpp ku fi tooyut gis nga yokkute gi te yokkute googi nit ñu bëgg lu baax rek eh, di wëllëre di xarit mm, ñoo fi dajee di leen ñaanal suñu borom lépp luy aw yiw woo xamante ni ñu ngi ko fi sàkk suñu borom defal leen ko di leen sant bu baax di sant ñëpp ñi nga xamante ne ay jëwriñ lañ te ñu ànd ak ñoom liggéey bii ñuy def euh, te seenu bëgg lu baax rek ñoom it moo tax ñu dagg seen yitte yëpp ñëw ànd kook ñun euh, liggéey bi nag waajtaayam lu métti lay doon lu diis lay doon waaye lépp ak sant la ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax suñu boroom defal ñu ab liggéey bu ñu nangu defal ñu it euh, ñu ñu tal ko te fekk ko déwén mu fekk ñu fekk jàmm te lépp ànd ko yokkute. waaw fii nag moom lépp loo xam ne. dafay jëm ci lu war a sedd fii lañ koy waajalee waaw fii moom mooy waañ bi nga xam ne bépp gandaal bu fi nekk ci dëkk bi euh, rawatina ci baas bi pénc mi ñi nga xamante ne ay wóoleera lañ ñi nga xamante ni euh, dañoo ñëw rek ngir dëkk bi ngir dégg ko wala ñu xam fi kenn fii lañ leen di waajale leen lépp loo xamante ni daal euh, ci ñoom lay jëm ci lu sedd la moo xam muy ndox moo xam muy boisson cérémonie bi jàngi guddi yi ak suñu xewloo ba noppi ci añ bi ak guddi gi lépp gan gu mën a ñëw daal ci lépp lu soxla ci wàllu ci kàttanu suñu borom fii lañ koy waajal. asalaamaaleykum yéen waa daara bi ñi ngi sant ñi tudd ñi sant kenn ko ne sa ak sa sant di rafet rafetlu teewaay bi ndax ku ne kooki ni barar te barar ak kooki benn lañ ko waa te sëriñ Seexuna Géey Badar Géey jar na lu ne ndax ñun ndawi kooki bu demee ba taxaw fii di wax ginnaaw yàlla moom la ñu ngi koy ñaanal yàlla guddalu fanam bëri li cëram ba lim yéen a liggéeyal sëriñ Tuubaa ak alxaaji sëriñ Géey mu baax ma sama defal ko ko ci saahiran wa baatinan ci barke sëriñ yàlla kontaan nañ lool sax lii rek yombul quoi ndax dikk ñu yaatal la dalal la jox la lépp bàyyi la lépp te waxuñu la dara rek dafa neex sant nañ gërëm nañ ñi ngi sant ñëpp waa axlu barak yëpp bàyyi woon kenn buñ limee rek dañuy juum ñi ngi sant jaajëf nag mënul paase jaajëf moo tax ñi ngi sant waa axlu barak gépp jërë ngeen jëf waaw auzu ngi sant yàlla bu sant julli ci yonent bi di waa daayira Touba Koki bépp mais di sant borom bis bi di sant borom bis bi sëñ Cheikhouna Gueye ñu ngi koy sant bu baax ndax euh, li lépp moom la lépp moom la ndax cër bi mu ñu jox ba tax ñu jox ñu waañu yi loolu suñu xol seet na ci bu baax a baax waaw moo tax suñu yéenee suñu yéenee ci moom foo ko takk romb na ko mais ñi ngi ñaan yàlla mu yàgg ñoo jiite yàgg ñoo taxaw yàgg ñoo digal ñuy def ci barke Sëñ Tuubaa inna nabiyana rasul accompagne monsieur et madame Guèye Ndeye Ba Djili Guèye fii ci Ahlu Badar dëkk bu ñuy wax Badar gannaaw Ngaay ñu ngi fii ci kii añ yi di defar añ yi pour euh, tere la ko gan yi euh, ci bésu gàmmu Badar bi dafa nañ leen ceebu jën dafa nañ leen ceebu payla dafa nañ leen ceebu yàpp dafa nañ leen ceebu ganaar di xaar nag reer yi vraiment lépp loo xamante ni mën nañ ko pour euh, teral gan yi rek dinañ ci taxaw def sunu kam kattan waaw ah, ñoo ngi ak euh, ku ñuy wax Daouda Ndiaye moom it di mbokkum taalibe ci kër gi ak euh, Touba Gueye di rakku Djili Gueye Abdourahmane Gueye di rakku Djili Gueye ñoom ñëpp ñu ngi fi jàpp ci bés bi ah, pour daal bés bi réussir à 100 pour cent ak ku ñuy wax Fatou mbay moom it ci kër gi la bokk waaw ma bàyyi leen ak. Daouda Ndiaye moom it mu tànn ci waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo leen sant lépp rek ngir gàmm gi borom badar ndax ñun amuñu leen lu borom badar ndax badar moo ñu may lépp mooy sunu lépp ñun badar lañu gëm te badar lañu xam parce que fi mu ñu jëlee ak fi mu ñu yóbbu xam nañ ko te bis bi dafa nekk bis boo xam ne ah, sunu sang bu baax ba di El Hadj Serigne dafa am ay ay kàddu yu ñu si dénkoon mu yàgg lool kàddu yooyu nag mu ñu dénkoon ci lañ nekk rek toujours ci lañ nekk rek waaw ci lañ nekk suba ci lañ nekk ngoon ndax lépp lu ñu am rek ñun Badar moo ñu ko gën a ñun Badar rek la ñuy